def tey wane na ni mu ngi concrétiser vision wu président Macky ku xam président Macky bi muy teg programme am en tuddee ko yoonu yokkute dafa jiitaloon jigéen ñi pour seen autonomisation tey nag firnde baa ngi nii Ablaye taxawalaat na siggil na jigéen ñi damay ñaan jigéen ñi ñu tàcc bu baax seen bopp ndey astu xam nga lu tax bâche bi li muy yaatu ak li muy fees lépp góor ñi dañ leen di wàññi ci baaraam kon na jigéen ñi tàccu seen bopp bu baax bu loolu weesoo Ablaye ñu ngi lay ñaanati ci ñun ñaan la ñu dëkk nga di defal lii nga def tey Sidi ñaan nañu la mu wër ci quartier commune Thiès Est yëpp parce jigéen ñi soxla nañu ko jigéen ñi soxla wuñu ku leen may soxla wuñu ku leen diri soxla wuñu ku leen xëcc ku leen may xam-xam lañu bëgg te yaa ngi ci kon dañu lay sant di la gërëm di la accompagne bu loolu weesoo nag en tant que présidente commission femme bu commune Thiès Est mooy man maa ngi leen di tàllal loxo te ñu ngi jëm ci élection en janvier 2022 ñun jigéen ñi nañu wane l'exemple ni mën nañoo élection ci jàmm ak salaam te ku nekk dem lijjanti ba sa carte leer ci sa loxo loolooy suñu njariñ ki nga xam ni tey moom lañ fi àndal muy le président Abdoulaye jéey président du mouvement Siggi jot na ñu ñëw tey fekk ci sunu sœur sunu xarit Kiné Sèye dit madame Camara dans le cadre d'une formation bu mu taxawloon pour jigéen ñi kon Ablaye jóge na ci liggéey fekk si ay jigéen yuy liggéey jëme leen ci liggéey moom rek laa wax ni fii ci Thiès ñi fi président Macky Sall teg ñu koy politikal ñu bari moom rek la ci joxul lu mu yore ba pare mu jël li mu yore di ko dimbalee waa Thiès am na ñu ngeen xamoon ñuy def politique ñu bari Thiès gisatoo leen ndax bañ koy def doon sacerdoce seen poste moo taxoon ñu koy def donc bàyyi nañu mais Ablaye depuis ma xam ko ba léegi mi ngi sur la terrain politique di jàppale ndaw ñi di jàppale jigéen ñi donc dans le cadre des élections locales yi njëm xam nga di wax na sànq ni dama fi ñëw teewal fi le maire Pape Diop teewalu ko fi man parti réew mi laa fi teewal bi nga xam ni président Idrissa moom la jiite bi nga xam ni Yankhoba Diattara ministre de l'économie mooy vice président bi parce que ñun sunu philosophie parti mooy rassembler pour servir président Idrissa dafa ni képp ku dëkk Thiès am yéene ci waa Thiès ànd leen ak moo ngeen liggéey pour intérêt waa Thiès maire bi fi nekk nag mandat am jeex na day dem moom xam na ko li des mooy ñu dajale mbokku Thiès yëpp jël ay nit yoo xam ni am nañu ay compétences yu wër c'est des gens qui savent innover ñu mettre leen à la tête de ces institutions locales te Ablaye je sais que ni am na compétence yooyu am na relation yooyu am na matukaay yooyu moo tax ñun képp koo xam ni am nga ay compétence yu wér bëgg nga Thiès ci loolu ñu woo ñu fekk ci moo tax tey nous sommes très ravis ànd ak moom ci manifestation bu mel nii pour yëgal leen ni waa réew mi ak mouvement jot na bés ni ki tey de nañu àndandoo ensemble en direction des élections locales yi ñëw loolu yëpp nag pour intérêt waa Thiès moo tax ñu koy def pour intérêt jigéen ñi pour intérêt jeunes yi moom également ci manifestation bu mel nii lay comprendre na la philosophie du président Macky Sall parce que li président Macky Sall bëgg yëpp mooy ñu fexe ba képp kuy ndaw wala kuy jigéen ñu tàggat la ba nga am métier mën a demal sa bopp mën a am indépendance financière ci loolu la woo ci loolu lañ ko fekk si di ñaan yàlla ànd bi ñuy ànd yàlla na ko yàlla sàmm mu nekk pour intérêt exclusif des Thiessois. ginnaaw bi ma leen nuyoo di leen ziar yéen ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di wax ni tey mënuma sax wax franchement ndax sama xol dafa sedd xaw ma lan laa leble woon de waaye tey fay nañ ma ba wis ma franchement fay nañ ma ba wis ma maa ngi nuyu ñëpp nag jiital ci nuyoo bi monsieur Ablaye Dieye monsieur le maire Ablaye Dieye sax laa koy wax ndax incha rabbi Ah, la fi newoon bu fi jugul ba tey ku ne xam na ni cité Senghor gii daanaka mooy Thiès Est kuy fal ñoo lay fal kuy folli ñoo lay folli te Ablaye mii incha allah dañ koy fal. tàccu leen tàccu leen loolu. di kontaan ci moom nag macha allah di ko wax ni yëfi gor rek la def ndax lim diggee lépp def na ko te loolu yombul ci suñu jamono yi ñu toll muy nit ku baax nit ku yaru. nit ku mën li muy def macha allah mention spéciale laa koy defal moom président Ablaye Dieye monsieur le maire Ablaye Dieye moom kenn du moom. loolu jàllee may jaajëfal ñi nga xam ne ñoo ma fi fekk tey sama yaay bëgg ñëpp ñaanal ko ndaw ku ndaa jàll mu gudd fan wér lool ndax lépp moom la ah di ñaanal sama papa ja ca ajjana yàlla yokku leeram macha allah ndax moom it lépp moom la ndax yaakaar naa ku xam alaaji Mor Seye fii ci Cité Senghor man bu ma taxawee taxawaay bi ma taxawee dama koo war a taxawee bu ma defee leneen damay jaaxal samay mbokk macha allah di remercier ñi nga xam ne ñooy samay famille samay grand frère samay sœur ñëpp taxawuma macha allah lii préparation bi yàggul ci une semaine la tool mm-hmm. mais kenn du waa mouvement ci laa bokk ndax mouvement ci laa bokk mouvement bu yaatu la boo xam ne biir Thiès ci quartier yëpp fu ne am naa fa ay nit yu fa nekk yoo xam ne dañoo bokk ci mouvement bi mais bi ma jugee taxaw xool Ablaye Dieye biir Thiès xam ne liggéey kat la ndax gaa yi bari nañ fi kat waaye bu baax bee yombul macha dañoo ibbi suñuy bët wër fu ñu jaar fekk fa la Ablaye Dieye def amul benn laam-laamee lii moo sabab ajaratu fàndaw sama mag ju baax ji fi jóge léegi kooku maa ngi koy jaajëfal na ko ñëpp tàcc ndax li mu def kuy ñaan mënu ko ah ndax moom moo gis Ablaye Dieye xam ne dërëm ak dërëm a mën a ànd ñaar dërëm ak ñaar dërëm a mën a ànd mu xam ne ñun war nañoo mën a ànd ak Ablaye Dieye ñun maa ci laa bokk mu boole ñoo ak Ablaye Dieye teg ñu ci loxoom macha allah moo indi présentation suñu diggante ak Ablaye Dieye ba tey mu jur lii mu jur bi ci des les femmes de valeur de la Gaye ñooñu tàccu seen bopp ñooñu nee naa la man xaw sax sax ñu ma falee responsable xaw ma ko dafa maa jaaxal ba tey les femmes de valeur de la TTV maman bu di ma koy jaajëfal bu baax a baax a baax di kontaan ci moom su ma jógee ci loolu ah alaaji defal ndànk monsieur Camara moom laay mujjee ndax moo ne ci kaw loolu moom xaaral bul yàkkam ah, su ma jógee ci loolu may remercier mon ami moo frère Salif Dia këram a ñu nii ah, sama mag réeroowuñu benn yoon dafa fekk ne tey dafa am ci lu mu ne moo tax teewul fii maa ngi koy jaajëfal bu baax a baax a baax di remercier monsieur Lamine Ngom kooku it sama càmmiñ la sama xarit la maa ngi moom du tey démb la ndax mook sama grand frère Abdou Seye mi nga xam ne moo taxool taxawal maa bii di ci laa bokk dooleel ma ci benn lañu ñu ñaar bi ci des mhm. may jaajëfal madame Mambay Gueye ah. Mambay fii boolewuñu xamante wuñu fii moom xam na man xam naa li ñu boole mooy maa ko xool ba sippali ko moom Mambay gis ko xam ko ci madame Kanté sama sage-femme ma ne ko bëgg naa la ndax ku brave nga bëgg naa la ndax dañoo yem jikkoo bëgg naa la ndax dame de fer nga Mame Mbaye foofu lañ xamante bu loolu yëpp jàllee may remercier waa Weer Weer les familles santé de suñu ginnaaw ñëw nañ ñu ci ginnaaw sama xar yi ci ginnaaw nag mënumaa lim bu ma limee damay juum ndax macha allah képp koo xam ne toog nga ci bâche bi tey madame Camara moo la tax a toog ci bâche bi te yëg na ko mu ngi lay jaajëfal di la ñaanal yokkute bu baax a baax a baax macha allah ñu àndak man nag ci ànd bii ma ànd ak jël décision ànd ab Ablaye Dieye mii kenn ngaa ñu ma ci ñëpp ci ànd ak man ni ma ki ne jiitul ñoo sa ginnaaw nee naa la mouvement ci laa bokk nag moom kenn du ñoom mënuma mm-hmm. leen a lim seen mbootaay yi fii ma taxaw ndax bari nañ mm-hmm. képp ku ne ci tànt bi bokk ci mouvement ci laa bokk mm-hmm. muy waa Silma waa Kër Ablaye Yakhine waa Cité Senghor ñëpp maa ngi leen remercier may remercier mbootaay yi nga xam ne dañoo adhéré tout récemment ci liggéey bu rafet bi ñu gis ñëw dugg ci mouvement ci laa bokk te gisaguñ ci seen bopp benn yoon nañu xaar formation dina ñëw ndax Ablaye Dieye bi ma ko séqal lu mu wax def ko lu ñu leen accompagner tamit dina ñëw ma ci jiital taata mi nga xam ne tey dafa jël mbootaayam ànd ak ñoom ñëpp ñëw toog adhéré di ku bees te amagu ci dara mu ñëw toog ni ma foo jëm foofu lañ jëm may kontaan ci moom ba tey di kontaan tamit ci mouvement Maam Say Aan macha allah bu si talamin uh-huh. moom it ñëw adhéré tey ni ma bokk naa ci mouvement ci laa bokk ànd dooleel Ablaye Dieye te ku si gis dara ah, te incha allah moom it dinañ ko seeti defal ko li mu bëgg mm-hmm. di jaajëfal mbootaayu ndeykat mii nga xam ne moom dama koy def mention spéciale ndax nee naa la moom kenn moom ndax nee naa la mburoog soow bi mu ñëwee dafa fekk maa moom moom amu ci problème ndeykat amul problème ci mburoog soow ndax dafa rafetaloon sama diggante ak moom ba mu rafet macha allah di sama sœur jàmm lañ séq moo tax tey bi ñu nekkee mburoog soow daa gën a neex amuñu benn problème na ma ko ñëpp tàccul tàccu leen ndeykan tàccu leen ndeykan macha allah maa ngi kontaan ci ñëpp daal bàyyiwuma kenn di gërëm sama grand frère monsieur Mostar Seye tey waroon na fee teew dafa am fu mu dem macha allah moom it bi ma sóoboo ci bis bii dana ma maa sa ginnaaw loo bëgg laay def loo wax laay wax maa ngi koy jaajëfal mook toute la famille Seyène mënuma leen a fay ay soxnaa ma ngi fi toog ji monsieur Camara moom moom mention spéciale laa koy defal ah, waaw waa ndax monsieur Camara uh-huh. bu ma sonaloon amaana xëy na duma mën a am lii ah, mais man mosumaa gis ku mel ni monsieur kamara ci ci bàyyi gi ma bàyyi nii ak nit ñi ci bàyyi gi ma bàyyi ak politique bi ci bàyyi gi ma bàyyi ci sama métier santé nga xam ne heure bu ne lañ lay woo au contraire moom bu ma naxasalee sax mu ne ma jugal ndax yow yaa war a jug kon moom maa ngi koy di ko ñaanal gudd fan di wax képp ku ma bëgg man madame Camara na ñaanal monsieur Camara mu gudd fan ndax bu guddee fan rek ma gudd fan macha allah di gërëm tamit xadisa yi mi nga xam ne mooy sama mag bu jigéen borom hôpital régional borom hôpital régional loolu xadi yaakaar naa ni ñëpp xam nañ ko ndax li may def poste santé Silema rek lay def hôpital régional di ko ñaanal moom tamit gudd fan ak wér di ñaanal sama jabar yi du ma lim du ma tudd kenn ñëpp gis naa seen taxawaay ci bis bi dëkkandoo yi ñu wër gis naa seen taxawaay ci bis bi kontaan naa lool yaatal nañ ma ibil nañ ma seen buntu jël nañ yëf yi def ko seen yëfu bopp mënuma leen a fay di gërëm en même temps presse bi presse bi de suñu ginnaaw au contraire man bi ma defee statut ñoom ñoo ma doon woo naan ma madame kamara kañ la ak ban heure la ñu ñëw amul kenn ku ma ci woo téléphone mbaa ma ju seq ak yow 10 francs maa leen di sant di leen gërëm di leen jaajëfal di remercier tamit Babacar Ndaw sama ndijaay moom sax laay teg nuyoo waa presse bi mu jàllale ko kooku sama ndijaay la macha allah maa ngi koy defal euh, mention spéciale di ko ñaanal budd fan ak wér di ko wax liggéeyam rafet na Mbaye Babacar jël naa nuyoo waa Thiès TV yëpp teg ko sa loxo ndax yow sama doomu bopp nga Alaaji Gueye yow mention spéciale ndaxte li nga may defal dafa jafe Alaaji Gueye mii du sama nekkatu ko sama frère la parce que lu man ne suba ba ngoon da ciy ne te Alaaji daa newoon ci yeneen ak yeneen daa bàyyi yëpp nag démissionné ñëw ngir sama jëmu ji kon kooku mënuma koo fay lama yéen ñi nekk ci foofu noonu gërëm naa leen kontaan naa ci yéen daba ndaa naan sama géwél maa buur bàyyiwuma kenn remercier naa ñëpp bàyyiwuma kenn maa ngi kontaan di bi mooy xadisee ne da maa ngi ñëw di wax ni macha allah Ablaye Dieye mi nag li ma bëgg ngeen defal ma ko yéen ñi nga xam ne nee ngeen man ngeen bëgg sama mouvement ngeen nekk te dëgg gi di sincère ma xam ko lool muy dëgg lool ci yéen damaa bëgg bu mu am benn werante bu mu am benn laam-laamee Ablaye incha allahu rabbi bis bu ñu demee le soir des élections ba pare dañuy jubilé comme nañu daan jubilé ndax mouvement ci laa bokk nag ah dafa juddu rek baax ndax bu ngeen seetloo ci élection 2019 yi la juddu ñu taxaw pour réeri la président Macky Sall yàlla may ñu ci ndam bu leer nañ ñi fii ci Cité Senghor ñu am ci mbégte lool kon tey bu ñu taxawaatee ni dañuy dooleel Ablaye Dieye pour teg ko ci mairie bi ah, loolu kenn du ko laam-laamee day am incha allah ah di wax nag mention spéciale boobu moom ki ma koy wax damay siggi jàkkaarloo moom muy asta yaay asta sama xarit sama doom nday soxna bintu ànd seen doom nday kontaan naa ci ndax asta nee naa la yow maa yow du tey démb la maa ngi nuyu ñëpp ñi ni teew nañ di am contentement jël parole ngir euh, sant gërëm ki nga xamante tax ñu d'une femme de valeur, d'une femme de vertu, mais une femme très dynamique, muy la dame madame Camara Kiné Seye donc euh, dama koy nuyu rek mais dina ñëwaat ci moom nuyu ñi nga xamante ni ñoom laa àndal ñëw ku gis délégation bi ma àndal xam ni Thiès am na changement Thiès am na stabilité politique Thiès am na jàmm ak salaam ci politique ndax tey coalition bu am doole bii ñu àndal muy le président Macky Sall ak le président Idrissa Seck ñu booloo nekk benn donc ñun tey waa commune Thiès Est matérialiser nañ ko wane nañ ni ñun benn lañ Thiès moo ñor liggéeyal Thiès moo ñor raison pour laquelle ngeen gis fii le premier adjoint euh, au maire de la commune de Thiès Est et également le deuxième adjoint de la commune maire Thiès Est. di monsieur Cissé Bey mu ngi nii toog et également le maire monsieur Cheikh Lo donc lii day wane rek am nañ gëm-gëm am nañ pas-pas ci ànd bi nga xamante ni le président Macky Sall ak le président Idrissa Seck woo woote la ko mais aussi di nuyu ñi nga xamante ni démb ak bërki démb man ak ñoom la woon muy coalition Benno Bokk Yaakaar mi nga xamante samay frère samay sœur ñoo ñëw ànd ak man ci bi ñu créé comité bu pour boole toutes les forces de la commune de Est à l'assaut des élections locales yi di ñëw muy euh, le comité d'initiative ñi xamante ni ñoo ko gérer di ko doxal ñëpp am si ñoom mbóolute ñëpp am si ñoom yaakaar muy le frère Lamine Ngom le frère Mamadou Diène de la FER mais également le sama sœur de jigéen bu mën góor la dame de la responsable féminine de la commune Thiès Est madame Mambay Gueye donc ñoom ñëpp ñu ñëw ñu booloo nekk benn pour ñëw seet si suñu sœur bii di madame Camara Kiné Seye madame Camara nag su may wax ci moom euh, damay am contentement ndax nit gor gor rek la mën a doon wax ko xam Ablaye Dieye man duma wax damay jëf mais madame Camara dafa mel ni bu ko ko mu dagaj la ndax dafa ñëw ma ne ko man duma wax damay jëf jëfal ko defal formation mais tey li ma wan répondre na li nga xamante ni moom laa ko defal ndax forte mobilisation bii ma def raar na su une semaine nga dajale mbooloo mu mel nii ngir ñu ñëw teeru ma si sama ñëw fii donc madame Camara sa engagement sa détermination mais aussi sa femme de développement bi nga nekk parce bi nga ñëwee toog man dëgg ma man du ma def politique politicienne man liggéey laa xam jàppale jigéen ñi jàppale ndaw ñi su may ànd ak yow damay ànd ak yow ci liggéey ma ni ko ah nga na naar si guuxum soow ndax ko xam Ablaye Dieye xam ko ni liggéey la xam développé koo xam la xam moo tax vraiment ñu àndandoo loo xamante ni mooy la formation des femmes sànq am na benn jigéen bu ko wax ñun soxlawuñu ku ñuy may xaalis soxlawuñu ku ñuy jox ay t-shirt soxlawuñu ku ñuy dugal si ay car pour ñu dem tàccu ñun li ñu soxla mooy ku ñu jàngal métier et je ni tey lii nii jigéen ñi def dafa bokk si le programme du président de la république Macky mooy accompagner les femmes les former pour leur capacitation mais également les financer pour ñu mën a et je pense que nit balaa nga koy jox xaalis dafa war a am métier ba pare parce que su amul métier xaalis ba ngay jox amaana mën na ko utiliser faneen mais 30 femmes yi ñu tey te leen formé ba léegi gis nañ ni ça fait même pas deux mois fructifier formation bi leen defoon ndax la ñu commencé woon ñu ngi koy yokk ngir commencé di di jaayal seen bopp di am seen i revenu donc lii nii lu am solo la et je pense que bépp acteur politique bu nekk fii si gox bi li nga war a jiital mooy wutal femme yi information mais également jàppale leen ñu am ay financement financement yi nag je pense que le président ñëwee ñun amatuñu problème pour di financer ndax ak na ay structures yoo xamante ni ndaw ñi jigéen ñi ku soxla finance financement boo fa demee ñu accompagner la te récemment président Macky Sall bi mu woowee conseil de l'emploi ñëpp xam na ni li mu jiital mooy accompagner la formation des jeunes leur employabilité mais également le financement des femmes donc structure yu mu fi teg tey président Macky Sall bu demee ba teg fi une enveloppe de plus de quatre cent cinquante milliards loolu yéen yéen ko moom Abdoulaye Dieye moomu ko monsieur le maire moomu ko responsable politique moomutu ko askan wi ñoo ko moom amul ci parti bi la bokk amul kële parti bi la li ko ñor mooy liggéeyal askan bi li ko ñor mooy liggéeyal Sénégal donc képp koo xamante ni am nga formation am nga métier am nga projet dem leen structure de formation yi xamante ni créé nañ ko au niveau local ndax dëkk bu nekk indi nañ ay service yoo xamante ni de proximité pour ngeen dem fa xool naka lañ leen di mën a accompagner et je pense que loolu ñun fierté la si ñun ndam la si ñun parce que ñun ba ñu nekkee si terrain politique ba depuis cinq ans je pense que ni on a eu plus de 3000 femmes mais également on a eu à financer plus de 3000 bu ko président Macky defee donc ñun dañ ciy gën a am contentement pour jàppale suñu jigéen ñi. donc nag di wax ni rek liggéey bi mu ngi door a ndax danoo jëm ci ay échéances yu am solo muy élection locale yéen a ko waxal seen bopp. man aji waxuma ko ndax man kese sama kàddu amul solo wante kàddu askan wi moo am solo kàddu population bi ñoo am solo yéen li ngeen bëgg suñu gox loolu lañuy def ñun dañoo am responsabilité déglu leen xool ngeen xool kan mooy leen gënal ngeen teg ko ci seen bopp maire yi du Abdoulaye Dieye moo leen wax kaay leen ngeen fal ma ma nekk maire wante yéen xam ngeen ki baax si yéen xam ngeen ki leen di former xam ngeen ki leen di financer xam ngeen koo xamante li ko ñor mooy dëkk bi li ko ñor mooy askan bi donc yéen ay proposer seen maire donc nag bu ngeen ma proposer du ma mën lu waaw ndax man yéen lay déglu yéen lay jàppale te sama yéene ci Thiès je ni xamu ndax bu leen ko xamoon di ngeen toog léegi léegi nii dem jël maire bi fa mu ne xëy na ko léegi te élection du am. ndax samay ndax samay opportunité yi ma am sama vision yi ma am sama gis-gis yi ma am mais sama esprit de management bi nga xamante ne am naa dama wax ni maire yi du mbiru politique. ni entreprise boo xamante ni la dañ ko doxal entreprise boo xam ne da nga war a am ay partenaires entreprise boo xam ne da nga war a ay ay structures de financement donc je pense que ni ñun bépp loo xamante ni mu ngi si gox bi muy si wàllu irrigation muy si wàllu santé muy si wàllu hygiène publique muy si wàllu emploi des jeunes muy si wàllu lii dafa cadre bi le président Abdoulaye Dièye am na si programme boo xamante ni dina si ànd ak avec ses ñu toog waxtaan xool lan mooy toxal suñu dëkk ndaxte ànd nawle la ñuy ànd ñun ak la coalition Benno Bokk Yaakaar bi nga xamante ni fa laa ak suñu mbokk waa réew yi ñëw je pense que ñu dinañ toog autour d'une table waxtaan xool kan moo gën ci suñu maire yi donc nag li askan wi wax li population bi wax dañ ciy tenir compte donc xam leen ni fi yéen la yéenay choisir seen i gin ñi nga xamante ne ñoo leen war a taxaw seen gox goxaat mais yéen waa Cité Lamy xam leen ni madame Kiné Sèye nii bu ngeen ko jàppalee ba mu nekk conseillère municipal bu leen doon defal benn tey dina leen defal fukk ndax la li muy def mu nekk amul dara mu leen di jàppale bés bu ko dénkee ay moo tax ma leen di wax ni xool ñi ñuy te nag fi ñu jëm moom dañuy xam kan la ñuy dénk d'abord erreur yi doon dal mooy xamuñu bu ñuy dénk parce xam nañ ni kat sunu président Idrissa Seck si xolu waa Thiès nañ bokk bu taxawee ne waa dama bëgg ñëpp jàng wante nag léegi nag moom day dem taxawal na leen ne kat kii eh, waa Thiès choisir kan ngeen bëgg mu nekk seen maire et je pense que ni loolu eh, lu am solo la si élection yi ñu xool ngeen xam kan moo leen jiite gox bu nekk am goxaan bu nekk ngeen ci si yéen xam ngeen këfa ngeen jàpp naa man président Abdoulaye Dièye bokk naa si ñi nga xamante ni gën nañ pour de Thiès donc bu ma nee yaakaar naa ni bokk naa si li nga xamante ni mën nañ diriger suñu localité. mën naa ni sama frère Lamine Ngom bokk na ci mën naa ni sama frère Cheikh bokk na si mën naa ni également bokk na mais sama frère Samba Fall bokk na si ñun su boobaa nag dinañ toog waxtaan suñu biir xool ban taxawaay la am ndax dana dëkk bi ko bàyyee kenn. ñu ñooy toog choisir a bopp naka la ñuy doxalee suñu réew naka la doxalee suñu Cees donc maa ngi dellu di kontaan di wax ni jigéen ñi yéen a moom réew mi man de yéen laa àndal sama politique jigéen laa si jiital moo tax tey lii ñu leen fi defal bu mu fi yem ku ñu jox la attestation boo demee sa groupement na leen formé sa groupement bu leen leen formé ñoom it ñu formé waat ñeneen ainsi suite ba jigéen ñëpp am métier donc madame Seye madame Camara Kiné Seye kontaan nañ si li nga def ndaxte politique lii la politique njariñ la politique politique de développement la am nga ñu ne si yow nga accompagner leen mais également di kontaan bu baax si témoignage bi nga xamante ni def nga ko si sama sœur Asta Ndiaye bi nga xamante tey mën naa ni moom moo ma yar ndax mook sama sœur ñoo doon ànd suba ngoon bu léegi bëccëg femme bu am dignité la femme bu am ful femme bu am fayda la mais aussi ku bëgg ku xam la donc ajaratu Assa kontaan nañ trop sa engagement derrière euh, madame Guinée Seye seen ànd bu wax na ma koy yàgg na et di nuyu euh, les femmes du mouvement Sidi parce que tey bu ñu ba xam Ablaye Dieye c'est parce que brave bi am ci mouvement Siggi jot na ci lañ jiital di Adja Marème Diop empêchement moo tax ñëwul mais les femmes sont toujours derrière pour m'accompagner et que lépp loo xamante ni femme Siggi jot na def na ko rek tees xam nañ ni yëngu nañ ndax seen gëm envers le président Ablaye Dièye mais maa ngi sant le mouvement Siggi jot na wax ne nag tey suñu pacte alliance bi ñu signé ak euh, madame Tine Seye dafa jaar ci la dame de dafa jaar ci madame Fatoumata Ndaw mënu ma woon wax ba jeexal te du ma ko sant gërëm ko wax na ko sànq dama fekkoon gaynde ma yee ko mais man de xam naa ni moom gaynde la ndax ba ma ko yeewee ba léegi noppalul fanaanul bés bu nekk muy ci terrain bi di wut ay femmes de développement di ma boole ak ñoom pour ñu liggéey donc moom moo ma mettre en rapport avec madame a Kiné Sèye mais également mën naa ni madame Kiné Sèye bii de boo ko a nekk kay nekk ndaxte lii mu wane fii de lii mu wane fii de vraiment ku amul taxawaay sa gox doo ko am donc maa ngi leen di sant di di wax ni nag lii lancement la rek que li si kanam bu bu euh, raw li bët di leen àndandoo encore liggéey si coalition bi ñuy wax Mburok Sow devenir coalition Mburok Sow et coalition des personnes de valeur la ñi nga xamante ni dañoo gëm Thiès ñi nga xamante ni Thiès moo lay ñor donc amul parti parti dañu woo waa Thiès si gëm Thiès man de en tout cas mu ngi woo bépp Thiès foo mënti bokk da ngay ñëw ñu àndandoo toog autour d'une waxtaan le devenir de la commune Thiès-Est parce que il faut changement mais également il faut une rupture. Et la rupture doit être pour une alternance générationnelle ndaw ñi ngeen taxaw am pour la am fayda xam ni réew mi yéen a ko war a yor